ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci atum 2021 tombeek fukki fan ak ñeent ci weeru safar gi ci atum ñeent téeméer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñett nekk ci weer woo xam ne mooy weerub safar weer woo xam ne ku ko wax xalaat li ci màggalub tubaa gile ku ko wax xalaat kii ci sëñ Touba xalaat 18 safaram gile war a tombeek ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre bi la ci dibeer bi lay nekk ñu war a màggal nit koo xam ne jonam gi la wax demam gi ñu sant la ko yàlla lim ci dem dem lim ci jëlee ak lam ci am nekk yoo xam ne ñëpp ci war a jëriñoo waaye ku wax yoonu murit kenn koo xam ne kenn mënu koo bàyyi ci ginnaaw muy maam Cheikh Ibrahima Fall moom moomee ñuy woowee lamp ndax taxawaay gi mu amoon ci wetu sëñ bi taxawaay gi mu amoon ci yoon wi lépp lu mu fi def li mu fi def ay njàngaleem ay mbiram yoo xam ne ñëpp war nañ cee war jëriñu maam Cheikh nekk nit koo xam ne nag ba léegi jàpp nañ ne lu ñu war a xam ci moom des na yan njàngale lañ war a mën ci maam Cheikh Ibrahima Fall nan lañ ko war a mën a xamee nan la ñu war a miinee njàngaleem yoonam ni ñu koy doxalee est-ce noonu la loolooy solo su waxtaan yoo xam ne tak tey moom la ñuy amal ci euh, plateau bi ti fi dalal kiiti mbay mbaylu nekk ndaw loo xam ne nekk ci yoonu murit nekk itam ci yoonu Baye Fall nekk ndaw moo xam ne moom dafay gëstu lu weesu ci mbirub tubaab waaye itam euh, ci mbirub euh, diine gi ci maam seex ak tamit ci yoonu murit maam Baye Mbaye ñu nuyu la dalal la ak jàmm ci plateau bi. ñu ngi lay ziar bu baax Alassane di nuyu murit yëpp. auzu billahi mina seytaan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 ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar te jiital ziar bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mom Serigne basirou ñaanu ko sa borom yàggu fi lol te wéral ko bo mbollem na li nga xam naal nako yeen ko liggéeyal maam ju tedd ji serigne bamba sa borom dolli ko katan ak man-man dolli ko tawféex ba nu ko bëgge mo amé ko ni noné lañ koy ñaanalé serigne am mu serigne Modou Fall Menda mom sa borom gën ko fe yagal te wéral ko waaye ñaan ko suñu yaaka ji teeg ak nak Cheikh Fallou Mamoudou Fall ak rakam ji Cheikh mustapha ak njabootu Muhammadul Aminta gi yëpp mm-hmm. waaye ñu ngi koy ñaanal tamit mboolem murid yi ak mboolem jullit yi ku leen yéen a jàmm mm-hmm. tey ñaanal ñëpp jàmm yërmande tawféex ak lépp rek loo xamante ni bëgg nañ ko waaye ak jekku màggal gi mm-hmm. barke Cheikh Fallou xam naa ne euh, euh, invitation tay bi am na ku ma doon wax ne dafa waroon tombe euh, lii ci talaata ndax ku wax talaata fii ci senegal sa xel day dem ci maam Cheikh dañuy wax ne talaata talaatay maam seex la bëla bëlay la loolu moom xam naa ne mooy laaj bu njëkk bi lan nekk ci diggante liiti maam seex mm-hmm. ak tamit talaata ndax da ngay toll foo nekk ci jamono ji léegi mm-hmm. ñu lay wax ne la talaatay maam seex talaatay mm-hmm. seex ibra lan moo nekk ci diggante seex ibra ak talaata talaata daa doon loo xamante ni sëñ bàmbaa ko rafaatale seex ibra faal li may wax sëñ Mamour Ndaw moo ko nettali ma dégg mm. mu wax ne maa ngi koy nuyu baax la mm. te sama royukaay la mu wax ne sëñ Bamba daa woo seex ibra nga xam ne bu njëkk talaata dañ koo gaafaloon mm. woo ni ko nag bisu talaata daa ñëw di ñaxtu daa bëgg ni ñu fonkee yeneen bis yi ñu fonkee ko noonu xam nga kuy wax géej mm. wax ak jéeri ji bu ni lay wax wax naag talaata war koo gëm mm. bi loolu amee sëriñ bi na ko nag gaaw moom jël naa ko muy samedi yow nag rafaatale naa li nga xam mooy talaata seerafaal nag ay mbiram yëpp xew si talaata mm. waaye bi si gën a siiw bokk na si gërëm gi ko sëriñ bi gërëm te loolu moo tax tey ñun ñëpp jariñu hmm. ak yeneen yoo xamante ni wax nañ ko si waaye fii ñu toll nii may wax hmm. ak li xew maanaam li ne si àdduna bi muy muy hmm. vingt 1921 jouru talaata lu ko sëriñ bi njëkk woote li may wax suñu xaarim Njaay Kayaar ma wax ak yeneen yoo xamante ni màggalu Tuubaa gi bu njëkk bi sëriñ bi njëkk a woote en 1921 bisub talaata la tombel kon ni Serigne Touba jëlee samedi nga xam ne bi muy génn xarat yow ma sabti la wax nga xam bi muy génn réew mi ak yu bari yoo xam daana ko dal bi samedi la ko daan dal mm-hmm. ba bu muy jógee gànnaar sax lettre ba ba ba tubaab bi bindoon mm-hmm. ne Serigne bi sa nekk gànnaar jeex na tey mën ngaa dellu Sénégal mm-hmm. bisu samedi la ñëw fekk muy gàmm samedi ba sa topp Serigne bi gàddaayaat ñëw kon noonu mu melee sëñ bi si ni sëñ bi jëlee samedi noonu la serabal jëlee jëlee talaata mhm. am na ñu wax sax altine si si si guddi maanaam guddik talaata tamit la la dem àjjana mhm. Mhm. ak yeneen yoo xamante ni am na si ci ci ci nga xamante ne waaw. loolu loolu loolu ab buntu la woon rek bu ñu doon ubbi. ngir mën a xamal nit ñi lii ay boole Sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibra ak lii ah, talaata waaye leneen mooy kan mooy maam Cheikh Ibra ndax dafa nekk nit koo xam ne dañuy wax ay karaamaam ti wax mhm. ay mbiram di wax ay jaar-jaaram waaye dafa mel ne dañ ko dul xam xamuñu kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall fi mu toll nii suñ doon wax man mii ndaw mi mhm. Cheikh Ibrahima Fall kan la lan nga ma koy tënkalee xanaa buñ koy wax dañuy wax ci melow nit bi mhm. maanaam si zaahir si Cheikh Ibrahima Fall mooy kan nit mën a dégg fu mu mën a soqi koo ndax kan nag yàlla dafa wax ne xam leen ba ma noppi ba ma jaamu te damay faral di wax ni am leen te xamoo ko ñàkkoon ko wëri koo ko gën te Cheikh Ibra daa doon koo xamante ni mbooleem koo xamante ni am nga yaakaar ne bëgg nga yàlla sa xol mm. war ngaa jéem a xam kuy Cheikh nga nga jéem a dox ni muy doxee mm. mu doon koo xamante ni nag wàllum ndeyam si Zaire ay sëriñ lañu wàllum baayam doon ay buur mm. ndax ndey seena bu njaay mu ko jur ndey seena bu njaay sëñ Balla Fagay Njaay ko jur mm-hmm. kon Njare Njaay mom ñëpp xam nañ ni dëkkub sëriñ la mm-hmm. Seex Rafaal fa la wàllum ndeyam sox ko bayam itam walum buur la xam nga ñu bari dañuy wax ne eh, Ahmadou Fall Saar Njaay ak yooyu non mm-hmm. Sayar Njaay li ñu bari waaye Saar Njaay la ndax ma desit Fall mo jur biran Njabi am ñoo xam Biram Njabi lañuy wax biran la moom moo ko jur biraat moom nag daal di jël ki nga xam ne mooy soxna Saar Ndiaye. Mm. ñu am Amar Fall. Saar Ndiaye mu jël soxna Roqeya ñu am Ahmadou Fall Roqe. Ahmadou Fall moomu daal di jël ki nga xamante ni mooy ndey seen mu njaay mu am Seera Fall. Mm. kon Seera Fall si diggante ñaar yooyu la soqi ko muy ñaar yi nga xamante ni nag fi mu ne moo moo yor àdduna. Mm. fi mu ne ku ku nekkul si nguur gi rek yaa ngi si sëriñ si kon moom ñaar ñi ko composé moom Cheikh Ibra moo tax mu war a mel nii mu mel nag ba ñëpp xam ni fi mu ne amul fenn fooy jaar ba jàmm Cheikh Ibra mhm. li taxoon sax buur yi bu ñu mësaan a ñëw jébbalu sëriñ bi mu leen daan booleeg Cheikh Ibra Fall mooy daa ne yow boo ñëwee doo ko fa jaay nguur mhm. bu dee sëriñ tamit boo ñëwee mënoo koo jaay Cheikh Ibra loolu noon noonu la demee waaye si si si si si si zaahir mhm. kooku mooy Seera foofu la foofu foofu la soqi ko wax nga ko da nga ko tënk ci ñaar ci côté euh, waajuram bu jigéen mm-hmm. mu nekk ay sëriñ mm-hmm. ci côté waajuram bu góor nekk ay kilifa ci àdduna bi maanaam ay buur mm-hmm. mu bokk ci ni nga ko waxee ñaari boor yi xam ne yenn saa yi dañuy wax ne bokk yenn saa yi nangu seen ànd du neex waaye ku nekk yaa ngi wër benn ci ci ñoom ñaar Cheikh Ibra boole ñoom ñaar ba pare am nu mu doxalee maanaam doxinu taalibe est-ce que loolu yomb la ci jamono jooju xam ne ñëpp dañ doon jéem su bokk ci benn wala nga bokk ci benn maanaam da ngay woote ne man sëriñ laa na nitu topp ci man wala nga ne man bu la nañu ti ma defal xam nga Cheikh Ibra li mu fi indi moom la nit ñi wala xoolaat mooy lan ndax imagineel yow foofu nga bokk ak sëriñ bi fa mu bokk mm-hmm. nga ñëw fekk ñi nga xamante ni bu njëkk fi leen fe fi ñu leen daan teg daa suufe lool nga fexe ba yëkkati leen yow fi ñu la daan teg mu kawe lool nga fexe ba wàcce sa bopp loolu la Cheikh Rafal indi fi nga xamante ni mooy yoonu murit te waxoon na ne àdduna lu bu yàqu ñaaro ko yàq mhm. te moom laa génnee si yoonu murit muy xëccoo daraja ak alal gis nga première guerre mondiale deuxième guerre mondiale mhm. mbooleem li fi xew te coow li bari lool lool ñaar yooyu rek koy waral muy daraja xëccoo daraja ak alal mhm. Cheikh Rafal nag daa jël loolu teg fee doxee li nga xamante ni moo di taalibe te mooy li nga xamante ne moo jar ndax sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ bu mag bi si boppam waxoon na sëñ fàllu Mbacke ne ko fa ma jëlee ak taalib bu ma fekk lu ko gën a kawe ma indil leen ko mhm. waaye gisuma ko fa mhm. Cheikh Fall nag daa xam ni kon loolu mooy gën gi alal mhm. mu jël ko indi ko jox ko maanaam da ngay gis murit boo xamante ne sax fi mu ne si si si si zaahir yax bu rëy la bokk waaye da nga koy gis day bàyyi lépp bu gisee waaw doon taalibe ndax nag mooy jariñ seerofal doon na xaw ma ndax bëri taalibe day jariñ waaye amuk taalibe moom dana jariñ si biir bàmmeel mhm. te ñëpp xam nañ lu ñuy liggéey fii ëllëg a tax kan mooy taalibe nan mooy melo yi nan la taalibe war a doxalee ci jamono ji xam ne yenn saa yi dañuy gis yaakaar ne Baye Fall mooy kuy defi njoñ nekk ci mbedd mi wala te def yenn yoonu Baye Fall nan la a mën a jàppee nan la war a mën a jëriñee a waxtaanee ci sen bloc d'information la total bi xam tay dañu am dalal fi euh, mbaylo nek ap euh, geussu kat ci ñaari bor yep mom nak ni ma ko waxee rek amna maîtrise ci ci ci bi waye itam mo ngi def ay geussu am solo hmm. jëm ci yoonu Serigne Touba ak tamit ci mam Cheikh ibrahim Fall moom lañ dalal tay ci euh, plateau sen bloc d'information bu baax gërëm ko moom Serigne Modou Mbacke Niang ci xibaar yooyu mu ñu andiloon ci euh, marax gi mbokk yi ñu dellu si waat ci seen blog d'information la totale ni ma leen ko doon euh, waxee tey lu ñuy waxtaanee ci seen blog bi nekk lu jëm ci mbirub maam ma Ibrahima Fall nekk euh, koo xam ne ci yoon wi am na ci liggéey gu am solo surtout nag ci yoonub Serigne Touba gi yoonu mouridisme ak tamit lu jëm ci mbirub diine ndax nekkul nit koo xam ne yenn saa yi dañ andi ah, ah, xamul woon diine xamul woon yoonu lislaam waaye ku ko xamoon la woon ndax nit ñu ko leeralee léegi-léegi ci tàmbali gi nekk nit koo xam ne wane na boppam ci benn boor ndax eh, eh, eh, ah, way way juróom gu jigéen nu mu boppam ci njaboot goo xam ne ay sëriñ la ñu woon am tamit ci wàllu way juróom gu góor ñi xam ne ci mbirub àdduna ay buur lañ fi woon ci plateau bi ñu dalal fi Mbaye Lo Mbaye léegi-léegi niñ ko niñ ko yenn saa yi dañuy wax maam Cheikh dafa ñëw seet si Serigne Touba da doon Mm-hmm. ndax dañ ko wax ne ko am na koo xam ne moom nga war a àndal moo la war a xamal yàlla mm-hmm. moom ba muy génn ndaw la woon mm-hmm. ñu bëri yenn saa dañ ko dul fàtte ndax dañ ko dañ dañ ci dul bàyyi xel ndax léegi Sénégal mag ñi rek la ñuy wax dañuy wax mag ñi mag ñi mag ñi waaye ñu si ëpp sëñ Touba ba muy woote yoonam ma gone la woon euh, ba muy ti euh, maam Cheikh ba muy ñëw tamit ci ci euh, wër ji sëñ Touba gone la woon muy won muy mel ne ne ndaw ci maam Cheikh terewul mu am jom xam ne am na loo xam ne da ko war a wër te mhm. newul loo xam ne day toog rek mu fekk si ko mhm. maanaam gis nga ndaw Cheikh Ibra Fall dañuy ndaw day liggéeyal yàlla mooy mhm. liggéeyal yàlla mooy joxe sa doole joxe sa ñaq joxe sa alal mooy li nga xamante ni mooy liggéeyal yàlla Cheikh Ibra nag daa nekk koo xamante ni bi muy ñëw si sëriñ bi ni nga xam nga ku wax ne ndax sëñ Moussa Ka dani mës nay xibaar ak jébbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ni ko bambala moom raasi ko jox ko say pexe mm-hmm. ku dem nag ba séq ak yàlla lool discussion boobu mm-hmm. kon am na feneen foo ne mm-hmm. kon ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni ndax am na naar bu mës a ñëw sëñ bi da ko laaj ne ko sa waa ji may dégg si kër gi du julli du woor sëñ bi ne na ko mën naa laa waatal ni de li mu nekk ñàkk xam tegu ko ko kon daa xam bu baax ci lu mu ne ba pare doog a ñëw bi ndax weesu wut nag di wër koo xamante ni nee nga da ngay wër koo xam koo gis maanaam di wër koo xam mosoo nga xam bi gisee Serigne Touba li mu ko njëkk a wax mooy mooy Mbàkke feeñ la mhm. kon ñoom ñaar am na fu ñu nekkoon ba xamante ba ñëw waaye foofu tey damaa mhm. bëggut ñu waxtaan fa mhm. ndax damay bëgg bu ñuy waxtaan la waaye ñu ñu wax ci fii ci waaw damaa bëgg ñu waxtaan si si saa saayir ñu xam dëgg-dëgg seerafal li mu mën a apporteel ñi nga xamante ni mooy ndaw ñi waaye rawatina yoonu murit ndax damay gis si si si si si affiche bi sax dañoo bind ne un pilier du mouridisme waaye Cheikh Ibrahima Fall mooy yoon wi mhm. xam nga pilier mooy jën maanaam jën boo xam mooy téye mbaar mhm. wala ponk waaye Cheikh Ibrahima Fall nag moom newul foofu yëpp mooy yoon wi moom mooy yoonu murit mhm. ndax nee na sëñ Bamba bu dee bu dee dëkk la bu dee yoon la fu mu jëm sëñ Bamba dëkk la man Ibrahima Fall mooy yoon bi ku yegsee maa ngi ku may romb romb nga dégg bi digge bi kooku mooy Cheikh Ibrahima léegi nag yoon boo gis xam nga mosoo dégg murit yoonu murit rek ngay dégg yoon boo gis nag kon bañ koy sàkk ku tax te Cheikh Rafal wax na ni yoon bi euh, jub na xocc sës na yaa na ngaay ku yegg siwu da ngaa jàdd kon moom li mu indi leer na leer na leer boo xamante ni képp ku jàdd wala li nga bëgg si sëriñ bi amoo ko yow la waaye du sëriñ bi est-ce que Cheikh Rafal nit yi ñoo ngi koy dégg dégguñu ko ndax dañuy tàmm ci gis sama sama sama sama genre gi mhm. ñoom mardi su jotee wala yenn saa yenn bés ñu mhm. tourné dugg ci internet bi gis ne Cheikh Ibra nee na rek ñu jël dugal yenn saa yi wax yi dégg ci cax wala waxi mel na loo xam ne daa xaw a xóot xam nga daa waxoon Baye Ibrahima Thiam mm-hmm. naka da ngeen dul yaaram waaye bu ngeen doon yaaram lu ma wax te da ngeen koy bind boo mm-hmm. demee téere Murid Saadix jotaay Murid Saadix bu sëñ Abdoulaye Fall yàlla na yàlla dooli ngërëm indi na ko si daa mel ne xët bu njëkk ba sax loolu la si bind loolu di wane kon waxi Cheikh Ibrahima Fall dañ ko war a bàyyi xel mm-hmm. xam nga ni picc kenn du ko sorti paas te xale boo ne ko plus deux plus deux danaa la égal quatre waaye boo ñëwee ne ko moins un fois moins moins deux fois moins deux xam nga mag nga koy wax mag nga koy wax mu mën a comprendre égal 4 mhm. kon Seera Fall li mu daan jàngale si olof la koy jàngale mhm. ngir bëgg nit ñi jaruñu si moom nga xamante ni ñaax na ndaw ñi ñaax mag ñi képp koo xamante ni nii dañuy day day faral di wax ni fii mooy daara ju amul daal mhm. waaye lu ñu fa wax borom daa dugg dindi ci loolu ndax ñu bëri yenn saa yi suñu mhm. bëggee wax ne man murid laa mhm. waaye bëgg bëgg bëgg lu yomb dañuy jàpp ne faw ma dem daw ne ji Baye Fall ndax su ma doonee Baye Fall du ma julli du ma wóor mhm. du ma du ma nekk te rey sama bopp ci yenn yi te nit ku ma romb mën naa wax ne ko Baye Fall laa jëm ko daaneel pour mën ko mën a am dara est-ce que Baye Fall dafa nekk loo xam ne yoon bu yomb la ni ko ñenn ñi gëmee xam nga yoon bi Cheikh Rafal dafa waxoon ne li mu indi maanaam Cheikh Ibra moom dañ ko yëg te lu ñuy yëg nag kuñ ko yëgul doo ko yëg yàlla daa dogale ñun ñi nga xam dañuy yaakaar dañoo yaakaar Cheikh Ibra gëm ko nag bu wér xam nañ ni li ñu nekk yombut dama lay jox benn exemple ndaw xoolal weeru koor bu jotee nit ñi tëdd seen lal di di di di nelaw wala ñuy taal seen ventilateur jàkkaarloog penku yor xasida duus Baye Fall moom bi ko di waaj a ñëw xam na ni lii moom ndigal la loo xamante mënu lay commencé di kor di dajale di dajale xam nga ñuy joxe ndogu si mbedd baax na lool mhm. waaye nag xam nga la nga joxe mooy nga tàmbali ba xam yow mënatoo fii nga yam nga doog a laaj ñu ñu ñu doole la sëñ moo daam dafa wax ni yéen a taamu naa si nit ñi da ngay gis li ñu yor dañ koy denc mhm. nekk yor seen këll taxaw si mbedd mi di di majal. yaakaar ci keneen ñi yaakaar Cheikh Ibrahima Fall dëgg dëgg dëgg nga xamanteni ni bu ndigal amé ñoy dem bu Cheikh rafal Fall ñoy dem bu seigne touba wootee ñoy dem bo leen xolé wéru koor luñ def luddul sa su nek duñ mëna sax nelaw ngir lijeenti alal jo xamanteni ni dañ ko yobul serigne bi mm-hmm. té buñ ko yobul serigne bi ñom ñoy juggé Dakar par exemple de passe dem Touba buñ démé koor gi bu joté ñoy dugg ci wañ bi di mm-hmm. togg di togg di togg dafa baxal ngay agné mm-hmm. reer mom do ken ken dul ko souray lay jëndal sa bop reer teg si yow li nga bool bi nga yenu dalay leer ne ay ay ganaara si nekk ay xar yu ñu afaraak mm. yooyu te doo si mos imagine loolu léegi ki nga xamante ni yow ndax Cheikh Rafal mosuñ ko ko wax mm-hmm. na ko xool nañu yow doo war waaye ku ndogu yaa ko jox mu mu ndogu mun leen bind leen ndogu ñu bind ko mun ko adal leen ko ñu ad ko mu jox leen vingt neuf mun leen kat saa bu ma jëlee sa mbool bi teg ko dina am ku woor yool woor woor ko weeru koor wu nangu kon Lol moy li nga xamanteni mo mo moo mais Baye Fall gi nak da da musta yomb yoon bi seigne Modou amine dafal ñepp xam nañ ni euh, yoonu Baye Fall euh, manam tegaat nako ci temps amna fenen fo xam indi indiwaat ngir leeral nit ñi ak Baye Fall deug ni mu war mel xolal xolal xoolal ñi nga xam dañu yaaka Cheikh Fall xoolal ci si sax nga xamanteni ñom ño gëna a Cheikh Ibra mës nga see gis sëriñ boo xamante ni wala dafa tilim wala dang koy xol diko ko amul sëriñ soo gis boo leen njëkkee gis rek li ngay njëkk def mooy da leen gis rek bëgg leen mm-hmm. yoon bi nag sëñ Modou Amit day wax ni ku la ko yombalal moo la ko xañ loolu laa loolu loolu dégg dégg naa ko ci sa benn waxtaan nga ni hmm. euh, murid yenn saa yi suñ la joxee nga lekk suñu tegee bool war waxtu lekk jot sax nga ñëw ak sa loxo tilim bëgg lekk ñu nga ni noo Baay Faal la waaw kaay raxasu kaay raxasu nga ni noo jaru ko Baay Faal la su fekkee da ngaa tilim ñu wax la nga ni noo Baay Faal la soo solee lu jekk ñun la doo Baay Faal est-ce que Baay Faal mooy maanaam dëdd àdduna d'accord waaye maanaam lépp lu jëm ci worma maanaam nga ni du mu ànd ak moom xam nga Cheikh Ibra Fall dañoo war a xool ñetti Cheikh Ibra yi maa ngi nuyu bu baax seen Alim Badara Dim ndax moom laa déggoon mu koy wax mm. Cheikh Ibra bu doon wut bu nekkoon kër Sëñ Tuubaa tarbiya ak bi nag bi am ngërëm nag ndax kuy wut nag da ngaa war a mel ni kuy wut mm. loolu la sëriñ bi wax waaye munoo wut ba pare mel ni ku am mm. kon Cheikh Ibra ba muy wut ndax wax nañ ni sax sëkkal kaw gi dañuy sëñ Bàmba mën naa woote yanu saa su nekk te su boobaa wuti téeñ du fi xaj loolu tax mu daa def waaye koo xam da ngay defar say njañ ba mu rafet du takk du tilim bu sëñ bi wootee doo dem yaa ngi sallal tëdd fu ñu toog nga naan Baye Fall la Baye ba boobu sa boobaa sa bopp ngay nax waaye naxoo sëriñ bi Baye Fall bi ki nga xamante ni moo di Baye Fall lenn la am te moo ñun loolu lañu ñu am mooy mooy ndigal sëñ bi wootee nga dem waaye na la leer ni bu dee da ngaa yaakaar Cheikh Ibra Fall sëñ bi wootee demoo yaa ngi def loo xamante yaa ngi mel ne ku war a julli waxtu julli jot julliwut mais melooy Baye Fall melooy Baye gis ci mbedd yi. Mhm. wala yu ñuy gis yenn saa yi te taseeg ñoom ñu lay intercepté te la wax léegi le d' accord dégg nañ ñu ni euh, Baye Fall soo ko gisee mandul rek loo mën def loo mënatu nga noppi waaye melos bees melo bu bees bii nga xam ne dañ koy gis ndaw yu bëri di wax ne noo man Baye Fall la mhm. damay saqal karaw du ma toppatoo sama bopp. su ma mhm. gisee euh, euh, yenn mbir yu bon yi ma jëfandikoo ko fu ñuy defee yenn saa yi yenn mbir yu safaanoo yi dañ ma ciy seen. loolu mooy Baye Fall maam Cheikh dañ ko ba lu leen neex def leen man àddunaa lépp maa leen di ràmm. gis nga Cheikh Ibra Fall day koo xamante ni. ndax sooy teewlu yenn saa dañuy wax ne la maam Cheikh nit gi ko set. xoolal dama ni la. daa doon koo xamante ni boo ko mësaan xool xam nga lan la wax. Mhm. ak Baay boo ko gisee mu ñëw da nga koy bëgg d'abord bu toogee ak yow. Mhm. bu jugee dem nga namm ko boo ko fekkee daf ko jër. Mhm. xam nga xam nga ñett yooyu. mooy yow nit ki moom da koy gis rek bëgg ko ngir melokaanam gis nga Baay Faal bu nuy gis koo xam day wooyewu boppam Baay nit ñi di la gis di la daw wala di la ragal xamal ni la Cheikh Rafal nekkon newo ci Cheikh Rafal bo xolé jamono yi mi nekk nak nga xamanteni fa ba ko sa be yabalon soxna yi buñ mësa buñ mësa na jël seen dépense mm. dañ daan jaar kër Cheikh Rafal siaré ko gone yi buñ waraan jang daaw ñu dem jangi day ñew kër Cheikh lan moko waro lan dafa am comportement bu or pair bo xamanteni mm. nit ñi dañ ko doom dañ ko doom xencu ci mom di bëgg di ñew diko di waye tay mm. waaye da ngay xol nit ki bala doon bayfal deug faaw mu def ay njañ mhm. faaw mu takku ba fess del ba du mëna dox mhm. tay du li gëna graw moy du ñak ben yoon ngir sëriñ bi mhm. du ñak ben yoon du ko gis fenn fu sëriñ woote mu ñëw man nak dafa am lo xamanteni ne ne ci man gis nga nit mënal waxtan aduna ak li ci biir wax lo ño xamanteni day daanel ñëpp waye man lima gëm mu jëf ndax ki ñu yaakaar di Cheikh Moustapha Mbar dañ wax dëgg amul solo gis nga toog fee naan Baye Fall la ak lii déedéet amu solo nee na fexeel ba jëf dëgg xam nga lan moo jëf dëgg mooy li ngay wax nga di ko def Baay Faal nag jëfam dëgg dëgg doonu lu dul ndigal mhm. ndax dañoo mës a nodd wax nañ ni sëñ moo Aminta Fall wax na dégg nodd yi ñu nu ko waaw mu daa woote de ñu nu ko waaw waaw Fall mu ni am nañu wuy ji ñu nu ko waaw mu ni yéen ñi wuy jul li leen tere wuy ji neen ko fonk te bàyyi ko xel te muy ndigal ñun loolu rek leen am mhm. man na ki may bayfal bi may naw mooy ki nga xamante ni saa bu sëriñ bu wootee dana ko gis waaye toog sa kër rek mhm. wala yor sa këll boo xëyee da ngay màjjal ba ngoon am na ñeneen ñu ko mën te mhm. sànq am na ñu ma ñu may interpellé di wax ne mhm. am na ñoo xamante ni seenub sëriñ santul faal seenub sëriñ di julli di woor te ñoom loolu duñ ko def ndax dañuy ñëw ne considéré seen bopp Baay Faal gis nga nag benn benn toogukaay warta mënta mënta war ñaari mbaam Cheikh Ibra boo jébbaloo ci moom xoolal nii waa kër Cheikh Ibra Fall yu doxee ngay doxe noonu hmm. boo jébbaloo si koo xam ne mbàkkee la sant wala beneen beneen sëriñ buy julli doon def Fall la sant sa bu dee day hmm. julli xoolal sa sëriñ ñuy ku nekk sa sëriñ nga war a xool teg ku sa bët bii li muy def nga di ko def li jëm ci mbirub jaamu yàlla ak mhm. euh, yoonu murit ndax ku yoonu murit wax jo wax jaamu yàlla mhm. te yenn saa yi dañuy mel na luy naatab la ti wax ne soo nekkee Baay Faal lu jëm ci mbirub jaamu yàlla mën nga koo bàyyi ci wet gi sëriñ si defal sëñ Bamba àddul na la lépp Seex Ibra Faal defal na la lépp kon lépp mën nga koo bàyyi alors que ne kilifa yi xam ne ñoom ñoo yore lii ci yoonu Baay Faal sax mhm. ñoom dañoo jàng ma ne ar Mm-hmm. mën laa tëril alxuraan mën laa bindali kaamir mën laa wan liy jëm li farata ak liy yoonu julli lan moo tax ñi xam ne dañuy dugg ci yoonu Baye Fall ñoom loolu ñu mel ne lu koy mañ ci génnee seen xel wala ñu koy bañ ci doxee. Euh, yoon bi daa doon loo xamante ni yoonu tuuma la te noonu la ñuy demee ba ilaa yawmi din ndax loolu la yoonu Baye Fall baaxoo waaye ñëpp xam nañ ni na sama sëriñ bi ma yaakaar te noonu la amee kër Baye Fall yëpp. bis bu jot danañ wàccee kaamil defal ko seen seen seen seen seen sëriñ muy sëñ Modou Amintu xam nga loolu ak ñeneen ñoo xamante ni noonu la mel Baay Faal bi li ko war mooy ndigal gannaaw ndigal nag mu lay taayale ko jàng alxuraan ak xasida ndax Cheikh waxoon na ko jamono ji dina nëx sànqal si lar nomboy xuur te su boobaa ñi ñi ñiy liggéeyal yàlla danañ dem soxna yee fi def ak goné yi di xëccoo alal ja su boobaa maa ngi leen di dénk ngeen ngeen sax si ndigal tey bàyyi tere jàng xas day Sëñ Tuubaa yi te topp doomi Sëñ Tuubaa hmm. kon Cheikh Rafal mu fi nekk leer na te bi si topp mooy bi ñuy waxtaan si julli hmm. daf leen laaj ndax julli fàttaliku yàlla la te effectivement noonu la ko nit ñi jàppee hmm. ndax dañoo jàpp ni bu ñu yeewoo dañoo war a xam am na ku leen moom bu ñu doxee ba naaj bi tàng am ku leen moom nañ ñëw julli noonu timis noonu gee balaa ñu tëdd xam ne am na ku dugal jant bi nañ ñëw Cheikh Fall nee na bu dee loolu fatlu julli fàttaliku yàlla seulement lañ la wara ray ndax yalla kenn duko faté ba diko di ko mom mm-hmm. la Serigne sali Mbacké waxoon ku yalla fatlu bopam doto talu dul mm-hmm. mom mm-hmm. bay Fall nak lolou len dal manam ko xamanteni nak du faté yalla kok ndax yalla li tax mu wacce julli lolou la door nañu xamaat source lan mo tax yalla wacce julli manam ñu kennal ko bay Fall bi nak sa su nek dina dina dina sa wax lu bon ma mu jëf ko ngir yalla jooj la si suur boo xoolee julli benn ko noonu koor gi leeral naa la ko sànq li bàyyi Faal yi daj ci koor gi dañ koy faral di wax sa ñun suñu biir ne li ñuy daj ci koor gi wooroon moo ko gënoon a sedd waroon toog sa kër gënoon sedd boo xoolee joxe azaka Seex Faal bi mu laajee mag ñi na ngeen ni joxe azaka dañ leen bu ngeen amee fukk fal lañu kat boo amee fukk benn ba ngay jox yàlla juróom-ñeent yaa ko moom na ne ah yéen ngott ku toll hmm. yalla ngay am fukk di ko jox opale. di ko ëppale di séddal di ko man bu ma fukk damay jox damay jox yalla wuti war a fukk jox sëñ bam hmm. kon koku nañu mom bi jaamu yalla moy am dara hmm. te yalla moko wax ñi nga xamanteni nañ seen bakkan ak seen alal bu ëllegé aljana la leen koy fayé loolu yalla moko wax si alquran. kon Baay Faal bi fofu la nek leen ko japp ni nak bi yoon wax la wala yoonu def lu neex Serigne Touba wax na ko nekk lu la neex di def lu la neex bu ëllëgee nga may wër ngir ma ngir ma ràmm la ma lay wër ngir ngir ràmm la. Mhm. yàlla xarañ na ba duñ gisee. Mhm. yoonu Baye Fall. ndax yoonu murit lañu wax yoon la benn benn la. la muy maam Seera maam Seera mhm. ñëw nekk ce am yoon boo xam ne da ko cee teg ñu ni moom mooy yoonu murit ci boppam. yenn saa yi nit yi dañuy xawti jàll ndax dañuy wax ne lu tax yoon ci biir yoon. est-ce que yoon dafa am ci biir yoon maanaam yon yoonam am Baay Faal am yon am wala yon bi benn la rek niñ koy déggee wala nit ñi ni ko jàppee moo tax yenn saa yi réerooti ci am. sànq dama la ko leeral. xam hmm. naa da nga koo déggul. Hmm. maanaam yoonu murit Cheikh Ibrahima Fall. dani sëñ Bamba dëkk la man Ibra Fall maa yoon bi. Hmm. te daa waxoon murid mourid Ibra Fall bàyyi seen i sekk la ko wax. da gis muy ñëw mun ko xanaa mourid nga mun ko waaw mun ko nduru nga ko lool japp ci loxo ag ak moom suuf jublu penku noko xana ni moy penku mu ko waaw ko waat naa kaaba ga lu yàlla bind murite gën waye daniko mouride mouride Ibra Fall te lolou Cheikh isa jenn leral na seigne bargen danako kay ko ma wax la nu nga xamee mouride sadiq mu ne ko nu ñu koy buñ teggon nandu guddi dal lu way jëfoon dana feeñ mouride mm-hmm. sadiq bi dana yakam bi fajar jot danako Ibra Fall la kon murid bi nak mom ki nga xam mom lañ waro roy te mm-hmm. xam nga ni yoonu mouride lan moko composer ak talib du leneen mm-hmm. ak taalibe mooy yoon bi moo tax nga wuteeg ñëpp boo ko bàyyee yam ak ñëpp sherfal mm-hmm. dani ki jàngal rasulullah ak taalibe ak alquran moo ma jàngalu taalibe te mu jiblu te si yàlla lu ko jëre mm-hmm. kon yàllaa namm jiital Cheikh Rafal ñëpp war koo roy ndax nag dani li sëñ Bamba ku ci bëgg dara da ngay def ni ma def wala kon doo doo ci am dara ndax sëriñ bi dani Ibra Fall dafa ma fekk jàppoon naa ni kenn du ma fekk la ma yanu jàppoon naa ni kenn kenn du ko gis waaye moom gisoo jàppoon naa bu ko gisoon dafa fa lay yam du si ñam waaye ñam na si neexaay ba taxoon na ma jàpp ni bu si ñamee doo doo maanaam dana tax ba du ko wax kenn mm-hmm. fexe na na ba ñëpp ba ñëpp mm-hmm. jaruñu si ndax sëñ sëñ moon mbay si bu du woon ak Cheikh Ibra Fall tukurool su ndaw si tey dund tasawuf te baax loolu romboon na fa da ngay dégg doo dégg si baax mm-hmm. moo tax nag eh, sëñ Fallou Mbacke daal ni saa Baay Ibra Fall moo moo moo tee naat bi raw kon kooku nga xamante ni nag moom lañ ñëpp war a roy moom yoonu murit te naa la xamal leen mm-hmm. sëriñ Cheikh Ibra Fall actionnaire la bii yoonu murit xamoon nga loolu mm-hmm. actionnaire actionnaire mm-hmm. maanaam bu ëllëgee lu waaye jëf si yoonu murit dañ ko ciy fay Baye Modou Fall Sadio la sëñ Touba jox ndékki moom Cheikh Modou Moussa Karim ak sëñ Massamba na ko ndékkil gaaw ñëw ma yónni la si Ibra Fall boobu seex Ibra mi ngi Cees waxaat ko ko ba ñaaro ñetteel ba mu ni cey Ibra Fall amul morom nee na Baye Modou Fall Sadio daan ni Ibra Fall amul morom sëñ wax loolu euh, sëñ Moustapha mm-hmm. na ko mat na ko de lii ko wax bu ëllëgee suñu borom yàlla te kenn du ci mën dara mm-hmm. ko Modou Fall mënu ko ndax nga xaw ma gan kër waaye kër gi si wàllam mm-hmm. moo tax bi ñu ñëwee naan ko Fall yoon bi yokk na xam nga lu mu leen wax man de du ma ko xamee noonu ni ko koy xamee mu ni fu waay jébbalu ak su ko mënti jébbalu da yàlla dana ñëw na ma diw jébbalu na si diw yow yaa am yi hmm. kon Cheikh Rafa actionnaire la actionnaire la si yoonu murid kon nag nit foo doon actionnaire yoon boobu yaa ko moom kon yoon bi moom Cheikh Ibra la hmm. képp ku sëñ sëñ Abdou Karim dañu képp ku ñuy wooye murid saadix te doxe ni Cheikh Rafal di doxee xamal ne dañ la koy jiin waaye doo ko yoon yoon bi yoonam la euh, lenn itam ndaw yi jël nañu léegi yoonu murid du léegi sax waye yag nañ ci waye léegi dafa melni na lu gënti ku nek di nga def sa portable def ko sa fond d'écran def ko sa pp def ko ordinateur sol sa bàyyilaat wala lenen genn ci wax ne man ab mourid la mhm. waye doxé bi nan lañu wara mëna a ci maam Cheikh ndax nit ko xamné da nga am alahera. am alakhirah mhm. moom su ma ko eh, mënoon eh, misaal sa wayjur wu góor nekk koo xam ne mën na jàpp ne moom na mm-hmm. àdduna sa mm-hmm. wayjur jigéen nekk koo xam ne assuré na la alaaxira mm-hmm. waaye yow nga bàyyi loolu yëpp ànd ak koo xam ne da nga ne moo la yóbbu ci yàlla te kooku yoonam yëpp ay mettit la woon yow nga ànd ak moom bàyyiwoo benn yoon nan la ndaw yi mën a jàngee ci leçon yooyu xam ne ay étape yu dul jeex la ay eh, mbir yu metti yu dul jeex te saa su ne taxul Cheikh rek dellu taxul mu bàyyi xam nga Cheikh Ibra lulul wosin na naa biig wax wasin na biig deg na ko te go du dul wasin moo tax jiñuñu ma ko ndax sëñ Moussa Ka dani mboolee murid lu ko so mu mel ni bu mata yow ba mujj far ñëpp ne melom ba di ko doxe bu njëkk dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon tooñ di ko wax lu ne waaye mujj gi ñëpp bëgg koo roy mhm. ci ni muy doxee dafa am loo xamante ni nek nekk yoon bi muy murid bi léegi day xëy rek indi sañ-sañam mhm. te looloo am. interprétation waaw da ngay gis koo xamante ni day dund benn xasida ñaari ñaari xasida commencé koo durus yow de un yow li ngay njëkk def mooy keneen kuy durus xasida gu gën a gàtt gi ngay durus sax da koy xeeb. Mhm. léegi murid léegi foofu teg si nag boole ko xalaat gu metti mhm. li ma naa leen yoon bi amul xalaat murid dañoo jël yoon bi ñenn ñi bokk. Mhm. boole ko xalaat bu metti léegi nag bëggatuñoo sonn ndax cey la mu am cey la mu daj moo ko jiitu. loolu dañ koy fàtte. da ngay xëy rek bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg a toll foo xam mm-hmm. to manam te sañ-sañ cheikh rafa sañ-sañ gu ant ak sànja ay say mm-hmm. sëñ Moussa Ka wax ni sañ-sañ bala am sànja am ak natu ak tumranke ay at at ba fat mm-hmm. cheikh rafa lool la def loolo ko dal manam tumranke jooju metti bobu motax mu am li mu am da wax ni ak dom sëñ Bamba gore ñun ko ah, lu def mu dama bayyi yalla bayyi sama bop bayyi sama mbokk top sëñ Bamba waye xol lu ma fay ñu lu la fal mu damaa maraleeg yàlla ba dootuma tàggoog moom defar ma ba dootuma yàqu boole ma mbokk yi gën samay mbokk te ma ak samay mm-hmm. mbokk yi gën samay mbokk te tàggalu ma ak samay mbokk da ngay seet loolu maanaam loolay wane kon euh, doolee liggéeyal sëñ Bamba mm-hmm. daana wax def ak dilli fal ak folli jàng mayu ko liggéeyal ku yàlla gërëm moo koy maye mm-hmm. dégg nga loolu daan ni jàng day tax loo bëgg loo gis xam ko waaye liggéey day tax loo bëgg xam ko loo bëgg am ko liggéey googu daf ci mhm. daf def def ci dafa nekkoon loo xam ne mhm. identité am la moom identité am la te ndaw yi léegi dañoo tayal Mhm. sunu sunu classe gi léegi dañoo tayal mhm. eh, yenn saa yi damay tooñ di wax ne mhm. eh, ku xool yenn saa yi bàyyi ndongo gi si si si si si si si si statut yeeg ñoom seen su tey nga gis ko mu sol laxasaay gi nekk ci mbalit gi su ëllëgee nga gis ko mu sol eh, ja ñett ñetti ñetti abdu yi nek ci nek nekk nekk ci waxtaan gi mu nekk loo xam ne dafa mel ne yow da ngay nangu def lii nii ngir ëllëg nga am lii mais ndaw yi léegi dañ koy ragal moom laa la wax si tàmbali ga maanaam nangatuñoo sonn ngir am dara xam nga sëriñ bi li mu yor day jaay te liy jaay moom ku indi njëg la kese si am. est-ce que du dañ ko yoonu sëñ yoonu yoonu Baye faal xaw ko yombalal moo tax ñëpp yaakaar na. non non gis nga nag mbir yi ndax dañ lay wax na la noo ñëwal nga tilim nga ñàq nga nga loo am nga jox ko sëñ bi après non ñun matal du la lépp. déedéet xam nga xam nga xam nga lan bul liggéey bul def leneen la ci wax. nga naa la xamal leen. Mhm. yoonu Baye Fall moo gën a doon jafe moo gën a jafe si looy gis mhm. yoo xam nga ni. kër Baye Fall boo fa demee boo doon lekk tey mhm. pepp ceeb bu nekk ñaar fukk la xam nga ko pepp ceeb bu nekk ñaar fukk boo mhm. ñaar fukk la sëñ bi da wax naan mhm. napp bi ñuy lal di si teg bool nee na loolu nekkut pour tuur waaye pour teral ñam wi la na keneen koo xamante ni maanaam mel na ni yow suñ boroom xañ ko ko defal la ko xolo xolo googu xam ne daana tere sax boo duggee si néeg maanaam ñëw rek ak bi nii danaa la jëlal li nga soxla maanaam ajal ndànk ba xaj fi nga xaj nga jàll loolu jàngale boobu nga xamante ni kër gi moom la ñuy doxee di ko doxee nga xamante taxaw sax di tifli mhm. dañ ko teree ak yu demee noonu toog sa kanamu sëriñ takk ay lunet mhm. si si lu dul ngànt wala farankulaay wala di wax yooyu yëpp bay fale boo demee da ngay xool xam ne ñii ci lu nekk mu wér lool nag nit ki mënu koo yor ba pare muy yomb ci moom tey jii boo doonee koo xamante ni yow xamoo lool boo demee li ngay jëkk a wax mooy seen kër gi seen kër gi dañoo metti mhm. nga boole si nag di liggéey guddeeg bëccëg tey bu maa ngi nuyu ma xujja bu baax. Mm. sëriñam bi sëñ Assane tey bu ñuy liggéey comme di nekk ci coulage. Mm. fi mu ne boo sànnee soo si ma bu tuuroo da ngay fay. Mm. maanaam sànni bi ngeen di def ci coulage ci coulage. da ngay fay da fay ñaar téeméer yëpp. barki sëñ Fall ngay fay. bu tuuroo da tey yooyu yëpp ay sew sew loolu yoo xam Baye Fall yi ñu ngi koy waaye bu dee bu dee bu dee liggéey bi nag moom la Cheikh Ibra nekkee woon. ndax boo xoolee sëñ Tuubaa dañu Tuubaa li abdin bi saarixin lahumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw addiyaati mhm. li ngay mën mooy li ngay jox sa sëriñ moom da ngay liggéey ngir nga mën ko am loo jox te xanaa koo bëgg moom loo am da ko jox ndax seerafal dañu alal fa mu jëm fa la xool ba jëm mhm. te xanaa ndaw sooy ndaw sooy génn sax boo ko bëggee te mu doon dëgg boo yoree alal di nga ko bokk ak moom mhm. asamaa sëriñ bi kon lii lii tax na nga mën a jox sëriñ bi lu lew mhm. mooy nga liggéey ko ndax Cheikh Ibra Fall dafa wax ni lépp loo xamante ni joxagoo ko sëriñ bi moomagoo ko mhm. ndax ni dee leen dee leen xoo leen wër euh, maanaam ràññeel la nag wërsëg sëñ moo daamantaa ko dox wërsëg ak alal wërsëg mooy li ngeen mën a am si àdduna muy jëm seen biir yi wala seen seen seen seen col ko yooyu waaye alal nag mooy li nga fekk biir bàmmeel Cheikh Ibra Fall nag nee na biir biir biiru jëmm biiru jëmm nit moom mën naa caaxaan ak foo ak def lu ko neex ba am lu mu ci dugal waaye biir bàmmeel loo fa def doo fekk kon loo fa deful doo ko doo ko doo ko fekk luñ des mhm. waxtu bi dañoo dañoo tànc mhm. euh, njaga moom yi def yi si mhm. euh, pour pour jeexal rek euh, Cheikh Ibra lu ñëpp bokk la ndax ku dul lu murit sax Cheikh mën ngaa jàng ci moom lu bë lu bëree bëri fi mu toll nii su fekkoon ne am na kàddu wala wax goo xam ne mën nañ koo jël mën koo jàngat te xam ne ku ku ko dig rek wala ku ko gis di nga jàpp ne non Cheikh Ibra kat kan man jàngal na ma te mhm. xaw ma ko woon wala wan na ma yoon gi mu war a tegu te euh, bàyyiwuma ko ndax yenn saa dañuy wax jëf jël ñaq jariñu mhm. loolu rek lañ jàpp waaye dañ koy way mhm. waaye duñu jàpp la nekk ci biir wax gi nan nañu war a mën a jàngatee benn kàddu goo xam ne sëñ bi mën nañ cee leeral lépp mën nañ see wax benn muy àdduna ñetti fan la démb tey ak ëllëg nee na bu démb ñaawee defar ko tey ngir dégg nga loolu. Mhm. beneen ba mooy jébbalu doy na alxuraan jëfe ndigal doy na xam-xam joxe ko te yàlla tax doy na diine. Mhm. loolu Cheikh Rafal jàngale na ko beneen bi mooy nu mu ko waxatee sax li maanaam liggéeyal sëñ Bàmba nee na boo si nekkee loo dugg génn ci mhm. loo sóobu am sa ndam kon loolu mooy li nga xamante ni mënuñ ko wax si waxu Cheikh Rafal waaye nag daa am loo xamante ni faw nit ñi xam ko mooy li xew léegi loolu du Baye Fall maanaam Baye Fall du aar. Mm. du loo xamante ni da koy xool nii rek du mode du tendance. du waaw du loolu. Mm. maanaam day loo xamante ni lu wér la. Mm-hmm. loo xamante ni yàlla la. damay faral di wax ni. te loolu lay tëjee sax. balaa ngaa nekk naan Cheikh Ibra bi mu gisee Sëñ Touba dañoo waxtaan ba jóg taxaw ba toog ak yooyu. Mm-hmm. xoolal lan moo indi Cheikh Ibra kër Sëñ Touba. Mm-hmm. xoolal tamit lan la Cheikh Ibra Fall fekk kër Sëñ Touba ak nan la def ba am dara. ay gëstu yu am solo yoo xam ne nit ñi mhm. war nañ ci euh, barti bàyyi xel gën koo def ngir mën a xam euh, kiti Cheikh Ibra Fall Baabul Muridina yoonu euh, murid bi xam ne moom la ñëpp ti nekk ci wut ci jéem a am li ci gën mbokk yi sant leen baax gërëm leen lii mooy li leen andiloon tey ci seen blog d'information La Totale sant bu baax Baye Mbayloo moom mi ñu ñëwuloon nekkal ñu ci waxtaan bi ak Baye Ndogo Ndogo mi doon yombal waxtaan bi ak invitation bi mbokk yi leen baax gërëm léegi-léegi ñu si ci xibaaru 19 yi ànd ci ak soxna ak Adama Anoushka Ba dellu si waat ëllëg incha allah jërë ngeen jëf